soo sooxee lool juróom-ñaar fukki at ak ñeent la am jóge ba caaro Caaroy ñëwoon saytu yaramam tey ci bis biñ jagleel feebar bii di jabet ay at a ngi nii lii di jabet daal di koy sonal lool tey mu ñëw ngir saytu yaramam. dama ñëwoon nag seet si rendu ma taseeg lii waaye alhamdulilah rabbil alamin sant naa yàlla jafe-jafe yi day jàpp sama yaram bi yëpp sama loxo yi mbagg yi yëpp lay jàpp mbagg yi mënuma yëkkati loxo yi. jabet doon feebar bu chronique faj ko laaj ay moyens yu bari bokk na ci lu koy joxe di suukar bu bari ci yaram doomi aadama bi ak yenn lekk yu baaxul yi. boo boo avant nga yor diabète nga daan liggéey yore métier léegi bu yàlla defee nga am ko donte le du feebar buy wàll du laa tee takk jabar mu laa tee sëy mu laa tee liggéey mais say di nga ko bëgg mais boo wérul lu bëri doo ko tal parce que question d'esprit la. waa diabète jabet euh, bon premièrement. mooy nga teel a dépisté wu teel comme nii ni ñuy def nii dépistage bi nii teel ko xam soo ko teelee xam am nga meilleure chance dund moom lu yàgg. ci Abass Ndao centre Marc Sankaré organiser fa benn journée consultation gratuite ngir nit ñi mën a ñëw saytu seen yaram. waaye alhamdulilah rabbil alamin sant naa yàlla tànk bi rek moom mooy problème sama tànk bi rek waaye kay sama yaram tane na tane na mu doon tuuree ndox tane na. maa ngi lekk nu baax maa ngi nelaw nu baax waaye bu njëkk bu daaw moo nelaw tuur ndox minute minute yëpp ba dem. 14 novembre doon bis bu ñu faral di célébrer lii di journée mondiale wu diabète réewu Sénégal nag nangu see des gannaaw.